koorug gay moolum géej o oh, xaaj ibrahim gay làmbaaya ngi bëgg ñaaw koor gi cete na du benn bum ci ne nit te bum jàpp-jàpplu mu mujj ko rëcc li ko ci xaar lépp yëg na ko tax mu rëccu benn fan sax mënuma ko am ci koor gi auzu billahi min shaytaani rajim o oh, xaaj ibrahim gay démb jéemoon na donte jaawalewul makk ak bakka waaye jaawale na naafila makk bu Sénégal Sénégal lee yàq kooram démb mu dogooti tey jilee jubal rajo ba naka muy dugg rek dajeek sëriñam ba Baye Mbaye Niass MC Niass gay gay Niass gay o DG sëriñ bi mere la nag Baye Mbaye Niass mayit mere naa la moo wund samay tànk Haj Ibrahim dégg naa ne dooy woor DG <laughs> eh Niass dégg daal daa xew mbaa du ci audio rek kon tey ma dee MC waxuma loolu yow kilifa nga xanaa xamoo ne koor gi benn fan nga tey ko dok da war a ka kafaara kafaara mooy ñaari weer yu tegloo ngay woor boo ci dagg tàmbaliwaat wala nga goreel jaam wala leel juróom benn fukki miskin xaaj ibrahim jaamu yàlla bu ne suñu borom wax na pay ga waaye koor dafa ne mooy borom la ma koy faye yool gënu ko rëy dèj góorgóorlul o oh, xaaj ibrahim gay xol bee woyof <laughs> wax di ma dëgg na tëriñ bi ñës ñës wallaahi seytaane rek bàyyi mbay ñes ñoo ngi ci fan yu mujj yi ndax yaa nga waaj génne muurum loolu lu mu ñu bëri dañ koy sàggane ci jaamu yàlla la bokk lu war la zakatul fitri waajiba ci bépp jullit bu góor bu jigéen ku am kàttanu génnee ko te ñàkkoo ko kañ nga koy génne nag bés bu mujj ci weeru koor mën nga jiital nag ñaari fan avant gi di jeex maanaam lu ëpp ci li waa dëkk bi di dundee loolu ngay génnee saa DG saa moom lekk la am naan Cheikh Baye mbay déet nattukaay la mooy ñeenti loxo yu tolloog loxo yonent bi yu yema mbaay ci li ëpp ci li waa dëkk bi di dundee ci sunu Sénégal gile ñeenti loxo ci wàllu ceeb wala lu nu mel maanaam pour mu gën a leer deux kilos virgule vingt cinq grammes ci bopp bu ne góor jigéen mag ndaw képp ku dundam aju ci sa ndodd yaa ko koy génneel wala sax neuf cent francs par personne DG jërëjëf jërëjëf ña dimbale nga ma waaye nag yow it sunu kilifa nga boo dematee bay dugg ci ay mbir baal xel ñi topp sa gannaaw ku la xas xasuñu coow yu sew yi teg ko côté <laughs> ñës bay mbayem si waa dégg naa la naa ci bàyyi xel xam nga rek man injustice laa mënta seetaan quoi no stress mais mbaa tey yaa ngi ci koor gi DG <laughs> de bàyyi mbay bi may romb sànq sama oto yaa ngi ci buntu rajo bi yaa ngi yor kaasu café DG mbaalu <laughs> vidéo rek bul ko publier tuuti laa ci naan tuuti rek